waaw seex na ginnaaw bu maamaam jooju di tafsir mbàkke ndumbe génnee àdduna fan la sëñ bi mujjee. waaw Aysa ginnaaw bu maamaam jooju di tafsir mbàkke ndumbe génnee àdduna woy juróom Maamoor Anta Sali daf koy yóbbu ci benn nijaayam bu ñuy wax sëriñ Mouhamadou Bousso sëriñ Mouhamadou Bousso boobu ñu gën ko xam ci sëriñ Bousso bi kooku nag imaam la woon borom xam-xam la woon bu ragaloon yàlla sëriñ Bousso bi boobu nag ci moom la mottalee jàngam ginaaw bi nga xamee ne mokkal na jamono yooyu nag fekkoon na benn buur bu mag bu nekkoon Saalum buur boo xam ne buur bu am doole la woon ñu koy wax Maba Jaxu Maba Jaxu nag buur bu am doole la woon bu nekkoon Saalum moom Maba Jaxu yitteem yëpp moo nekkoon xeexal li nga xam ne mooy diiney lislaam moom buur la woon waaye juddit la woon waaye koo xam ne diina daf ko ñoroon lool Maba Jaxu noonu mu daan xeex ak ñi nga xam ne ñooy caddo yi ngir jëmbat li nga xam ne mooy lislaam mu sax ci réew mi ba taxoon na réew yëpp la daan dem di xeex ngir taxawal lislaam jamono yooyu nag mu xeex ak ñi nga xam ne ñooy waa Jolof ay ceddo bari fa lool mu gañe leen gañaay lu rëy gañe googu mu leen gañe woon nag na Maba Jaxu tiit ci li nga xam ne mooy ceddo fayu ci kaw sëriñ yi ndax sëriñ yi dañoo néew doole te dañoo tasaaroo ci réew mi waaye ceddo yi comme mer nañ amuñu dañuy dem fayu ci kaw sëriñ daara yi taxoon na Maba Jaxu di dajale bépp dëkk boo xam ne sëriñ daara nga fa mu récupérer la yow ak ngir andi la fi nga ngir aar la jamono yooyu nag Maba di def kër sëriñ daara ba mu dem bu waxtaan ak yow soo nangoo mu jël la ànd ak yow dem Saalum su fekkee nanguwuloo mu bàyyi la fa yow waaye day jël sa njaboot àndi leen ngir samp li nga xam ne muy diina ci noonu nag la Maba Jaxu daal di ñëwee fa nga xam ne mooy bawal bi mu ñëwee bawal nag daal di jël ki nga xam ne moom mooy Mamoor Anta Sali jamono yooyu ma nga ca nja bi mu ñëwee jël Mamoor Anta Sali daal di jëlaale ki nga xam ne itam mooy sëriñ Busoobe mi nga xam ne mooy sëriñ Mouhamed Bousso mi yoroon ku tedd ki Xaadim nono la leen jëlee ñoom nyom ak ñoom dem fa nga xam ne mooy saalum saalum googu nag sëriñ yëpp daje fa mbooloo mu takku maba joxu am doole ju mag a jamono yooyu nag maba joxu pa daal waxtaan ak sëriñ ngir jiital ki nga xam ne mooy sëriñ bu soobee mi yoroon sëñ bi di ko jàngal ngir mu nekk seen imaam ñoom ñëpp nekk seen njiit waaye sëriñ nangul ko loolu ki nga ne mooy sëriñ bu soobee nekk imaam jamono yooyu nak maba joxu réew yu bari ci Sénégal ko ndax Maba Diakhou gañe na li nga xam ne mooy Jolof ginnaaw bi mu gañe dëkk yu bari ci Saalum noonu nag la gañee dëkk bi nga xam ne mooy Kajoor Kajoor nag Maba Diakhou xeexul ak ñoom waaye moo leen yilif ndax buur ba nga xam ne moo fa nekkoon di Lat Joor dafa daw ñëw ca Saalum ngir làqatu ci ginnaaw Maba Diakhou Lat Joor nag sababu dawam ngir ñëw ca Saalum mooy dafa doon xëccoo ak ki nga xam ne mooy Maajo Jafaal Maajo Jafaal nag moom ay mbokkam ñoo njëkk a yilif li nga xam ne mooy kajoor waaye Lat Joor moom la nit ñi gën a jàppale ndax ay mbokkam ñoo ëpp lu ñu yilif kajoor ndax yilif nañ ko lu tolloog téeméeri at ak ñeent fukk tàmbalee ko ci lak sukaabe ba ci sàmbalaw bi nga xam ne moo mujj jamono bu nekk nag ki nga xam ne mooy majoojo ak Lat Joor bu ñuy xëccoo Lat Joor mooy gañe jamono bu nekk Lat Joor di dàq ki nga xam ne mooy majoojo faal majoojo faal nag moom itam jàppale ne moo gën a yey ndax ay mbokkam ñoo njëkk a yilif ci noonu bi majoojo amatul pexe jamono bu nekk la Joor di ko dàqe mu daw dem ca tubaab ya jamono yooyu tubaab yaa ngi ci dëkk bi waaye ñoom dañu doon liggéey rek at mu jot ñu joxe li nga xam ne mooy lempo lempo yooyu ñu daan joxe nag at mu jot dañ koy yokk dañ daan jox buur yi lempo waaye taxul woon ñu dugg ci wàllu nguur gi tubaab yi boobu dugguñ ci li nga xam ne mooy wàllu nguur Maajoojo Faal nag daw daal di daw dem ci tubaab yi ngir waxtaan ak ñoom ñu dimbale ko bam yilif li nga xam ne mooy Kajoor ci noonu nag la tubaab yi daal di ñëw fa nga xam ne mooy Kajoor daal di dàq Lat Joor Lat Joor nag daal di daw ginnaaw bu mu dawee dal di ñëw fi nga xam ne mooy Saalum waaye bi mu ñëwee Saalum nag ki nga xam ne mooy Mabba bi mu yëgee ne Lat Joor ñëw na daf ne dama ko recevoir li fekk tuubul nekk jullit su fekkee tuub na nekk jullit bu boobaa dinaa ko recevoir dalal ko ginnaaw bi Lat Joor daal di laaj ay nitam ñu waxtaan ak moom ne ko léegi ni ngay def mooy da ngay jéem a tuub rek nekk jullit soo demee ba jógee fi nag looy def yaa ko xam Lat Joor nag daal di ñëw. daal di tuub ci loxoy ki nga xam ne muy Maba Jaxu waaye nag jor yàlla defal ko tawféex bi mu tuubee tuub gi dugg ci biir xolam mu daal di continuer ak jullitam daal di koy rafetal ngoram ba fi dafa continuer nek nekk li nga xam ne mooy jullit. waaye jamono yooyu nag sëriñ daara yëpp ña ca Saalum jàng bi ak jàngale bi daal di tar lol kër yëpp di taxawal li nga xam ne diina giir yi nga xam askan yi nga xam ne xamante won jamono yooyu ñu commencé di fu commencé di xamante ak moroomu sëriñ daaram foofu nag rawante bu mag commencé faa feeñ ci wàllu xam-xam bu yaatu ak wàllu dàq jàngale ak gën a set làmmiñ pour mën a wax ba mën a jàngale njàngale bu dugg ci biir bopp nit ki waaye ki nga xam ne nag mooy sëriñ Maamor Anta Sali mel na ni sëriñ daara yi fa nekkoon yëpp moo leen rawoon moo leen ëppoon xam-xam te it moo leen gënoon a set aw làmmiñ ci jàngale bu set bi muy jàngale taxaw na ni ñëpp di fàq di jëm ci ki nga xam ne mooy sëriñ Maamor Anta Sali ni ñëpp di ñëw ci moom waaye jamono yooyu nag Lat Joor moom daal di choisir ki nga xam ne mooy sëriñ Mamoor Anta Sali ndax njàngale mu set bu muy jàngale ak xam-xam bu bari bu rafet bi mu am ak maandu gi nga xam ne maandu na ko ci ay atteem Lat Joor nag daal di sax ca ka nga xam ne mooy sëriñ Mamoor ànd Sali daal di koy def ko wëllëre def ko mbokk def ko xarit sëriñ Mamoor Anta Sali di ko jàngale li nga xam ne mooy diinam ginnaaw bu Lat Joor tuubee ci noonu Lat Joor daal di yëkkati benn rakkam boo xam ne moo ngi tudd soxna Isa Diop daal di koy may Serigne Mamour Anta Sali ngir mu nekk soxnaam jamono yooyu nag ku tedd ki Cheikhul Khadim moom ñëwaat na ci loxoy way juróom boobu nga xam ne mooy Serigne Mamour Anta Sali ndax boobu ñoom ñëpp ñoo ngi ci Saalum bi ñëwee Saalum moom mu ànd nijaayam boobu di Serigne Bousobe bi mu ñëwee ci lay ñëwaat ci loxoy way juram ginnaaw bi am njàngam ci alxuraan matee mu ñëwaat ci loxoy way juram boobu di Serigne Mamour Anta Sali ngir jàng fa li nga xam ne mooy xam-xam ci noonu mu daal di sax ci way juróom boobu nga xam ne mooy sëriñ Mamoor Anta Sali jàng lu bari ci xam-xam ci moom ndax sëriñ Mamoor Anta Sali dafa bari woon xam-xam lool ci noonu ñoom ñu nekk ca bañ fa Abdir, nekk fa ab diir Maba Joxu daal di sóobuwaat beneen ak jamono yoyu Maba moo ngi am doole lol ak kàttan ndax yilif na yu bari ci réew mi Siin nag moom dëkk bu ndaw la nekon, xam ay séeréer ñoo fa nekkoon waaye amuñu won doole amuñu won doole amuñu won kàttan waaye ñoom bi dañoo dogu ak li nga xam ne mooy ak déggoo seen biir ndax dëkk bu ndaw la woon ci di préparé li nga xam ne mooy xare bi ak doole ju mag arme yu baree bari bari ak mbooloo mu takku ñi nga xam ne ñooy waa itam ñu daal di préparé xare bi ñoom teg ci seen bakkan ne ñoom ñëpp bu ñuy dee ba ci ku mujj ci ñoom nañ dee ba jeex waaye duñ nangu mukk deltu di seen bakkan ci li nga xam ne xare bi waaye ñoom waa Siin dañoo dañoo déggoo seen di waxtaan ne ku bokk ci seen dëkk bi nañ ko génne balaa kenn di génne seenub secret te noonu ñoom ñëpp ñu daal di déggoo ci waajal ba jekk daal di ci garab yi nga bu di ñëw duñ leen gis waaye maba moom waajal na xare bi ànd xel mu dal ndax yàgg na di soobu ay xare di gañee taxoon na itam mu naagu ci xare bi ba li doole ji rëy rëy rëy rëy yëpp teewul àndul ak xel mu bari ndax dafa armée bi ci mu takku bi ñu sooboo xare bi nag ba jub fi nga xam ne fa lañ war a xare dañoo jëkki jékki rek gis arme bi nga xam ne mooy arme Maba joxu commencé di daanu ci suuf benn par benn bali fetal yi di leen dal ñuy daanu comme ni xobu garab yi di waddee ci suuf ci noonu séeréer yi songu leen ak doole daal di leen gañe gañaay lu métti ray lu bari ci ñoom ñi ci des itam daal di daw Maba nag noonu la jékkee jékki rek gis boppam ci suuf gis bali wër ko noonu mu daal di faatoo waaye lu jiitu muy faatu kenn ci armée bi na ngir bëgg ko defar wëlbati jëmmam mu jublu xibla waaye mab ba dafa gàntal niko ko bàyyi jublu ak armée bi ndax yéene ji ma amoon ngir jaxaat ma continuer ko Nono la mab ba dal di faatoo génn na suñu borom yërëm te jéggal ko ci noonu nag ñi nga xam ne ñooy waa këram di continuer di saxal diine ji fa nga xam ne mooy jamono nga nekkatul ca Saalum sëriñ daara yëpp nag daal di dellu seeni bërëb tasaaroo ku nekk fa nga jóge woon nga delluwaat fa. waaye jamono yooyu nag sëriñ Mamoor Anta Sali moom demul woon ma nga desoon ca Saalum bokkoon ci sëriñ yi nga xam ne ñoo fa desoon di continuer am njàngam comme ni mu ko baaxoo defee biñ demaatee ab diir nag ki nga xam ne mooy Lat Joor daal di am convocation ca dëkkam boobu nga xam ne mooy Kajoor maanaam ñu war koo falaat sababu falaat mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo doon fal ak folli ñoo dem ba sonn ci maajoojo amuñu pexe ñoom itam ñu daal di def ne maajoojo defoon dem ca tubaab yi ngir sàkku ci ñoom ñu folli maajoojo ci noonu tubaab yi daal di folli ki nga xam mooy maajoojo daal di woolu ki nga xam ne mooy Lat Joor ngir mu dellu fa nga xam ne mooy Kajoor nekk fa buur ci noonu nag Lat Joor daal di am tawféex ngir delluwaat Kajoor nekk buur waaye bi muy dellu dafa sàkku ci sëriñ Mamoor Anta Sali ne ko léegi comme jullit laa te sama diina ñor na ma bëgg naa ñaan la nga sarax ma ngir jëmmi yàlla sunu borom nga ànd ak man fa nga xam ne ca kajoor ngir nga nekkal ma fa ab sama diina man ak sama waa kër waaye sëñ Mamour Anta Sali moom gàntaloon na njëlbeen gi mujj gi mu nangu ndax gis ne rek su deful ab responsable lay don ci kawam ndax yol bu rëy la ciy am ngir gind doomu aadama ci wàllu dinam yol bu rëy daf ci ci sering Maam Mor Anta Sall daal di accepté loolu daal di nangoo ak ki nga xam ne mooy Lat Joor dem fa nga xam ne mooy Kajoor jamono yoy nag ku tedd ki Cheikhul Khadim moom demul won ànd ak papaam dafa desoon ca Saalum ci benn baayam bu ndaw bu wax ka ngir jàng fa li nga ne xam-xam ci noonu mu continuer di jàng foofa ca sëriñ Samba Tukulóor ka ca Saalum waaye ki nga xam ne mooy sëriñ Maam Mor Anta Sall moom ànd na ak Lat jor ngir dem fa nga ne mooy bañ demee ki nga xam ne mooy Lat Joor daal di koy daggal suuf ca Kajoor daggal ko suuf soo xam ne daaraam la woon moom sëriñ Mamoor Anta Sali mu def fa daaraam tuddee ko Pataar daara jooju di Pataar nag moo ngi nekkoon ci wetu kokki sorewul dara ak Calmaxa fi nga xam ne mooy dëkk Lat Joor ci noonu sëriñ Mamoor Anta Sali saa bu xëyee di ñëw di dem ca fa nga xam ne mooy kër Lat Joor di àtte su àttee ba noppi delluwaat ca daaraam ndax bëggul woon jaxasoo bu bari ak ñi nga xam ne ñooy nitu nguur yi waaye ki nga xam ne mooy Lat Joor itam da ko tànnal heure yoo xam ne moom lay ñëw di àtte bis bu set heure bu mu war a ñëw ak semaine bi heure bu mu war a ñëw ngir boo àttee ba noppi mën a delluwaat fa nga xam ne mooy ca daaram ja pataar li nga xam ne mooy jaamu yàlla ginnaaw bi nag la ku tedd ki Cheikhul Khadim delluwaat ci loxo way juróom woowu nga xam ne mooy Mamour Anta Sali ngir àggali li nga xam ne mooy am njàngam ginnaaw bi mu nekkaat foofa nga xam ne mooy Kajoor di jàng waaye sëriñ bi nag xew-xew yi nga xam ne am na yëpp nag def na ay jeexital ci xelam ginnaaw bi nga xamee ne moom yàlla daf ko bind mu nekk ndaw waaye nekkoon ndaw loo xam ne xel mu rëy te sell te yaatu la yor xelam wute na ak xelu doomu aadama yi ci nu doon xalaatee ndax dafa amoon xalaat bu kawe xalaat bu sori waaye xalaat bu yaatu te rëy te wetoon loolu ci xalaat bi nga xam ne moo ngi koy xalaat taxoon na xew-xew yi amoon yëpp dafa def jeexital ci xelam sëñ bi bàyyiwul xew-xew yi romb rek daf koo téye def ci ay jàngat yu yaatoo yaatu ki nga xam ne mooy Mabba dafa doon woote ngir moom dafa amoon lu bëggoon rek di ko woote muy diina taxoon na muy not nit ñi ngir taxawal li nga xam ne mooy diina ki nga xam ne itam mooy waa siin itam dañ leen noona not ñu bañ notal googu xeex ak ba gañe ko ba rey ki nga xam ne may Lat Joor daf doon xëccoo ak ki nga xam ne mooy Maajooja Faal ngir kee dafa bëggoon a yilif kii tamit bëgg yilif ginnaaw bi ñoom ñaar ñuy xëccoo ba ab jàmbaru jógee fële mooy tubaab bi ñëw daldi di nangu mbir yépp ci seen loxo daal di téye mbir yi sëriñ bi nag loolu nag daf ko jàngat bu mu jëlaat lépp nag delloowaat ko sunu borom daal ci yéemu sunu borom loolu nag na sëriñ bi xeeb àdduna lool xam ne àdduna bi daal lu ñàkk solo la ginnaaw bi nag sëriñ bi daal di won jubliyal lool ginnaaw daal jublu yàlla kese ju raxul dara yàlla joo xam ne dara raxu ci mbir yépp delloowaat ko sunu borom. waaw jërëjëf léegi bëgg naa nga leeral ma melokaanu sëriñ bi maanaam mom jëmmam nan la meloon. sëriñ bi nag nit ku diggu doomu la woon maanaam nit ku yam la woon njoolul woon ba boo ko gisee ne ab njool la waaye gàttul woon ba boo ko gisee ne ab ndaama la moom nag nekkoon na koo xam ku tuuti woon yaram la woon waaye ku ko gis di nga xam ne ku am yax la woon li waraloon tuuti yaram gi nag boo gisee da ngay xam ne dafa lekkul naanul maanaam dafa dundul waaye su dundoon bu baax a baax dina am yaram loolu moo taxoon mu tuuti woon aw yaram waaye bu daan dox dox bu gaaw la daan dox ku sawar la woon ku rëy xel aussi la woon moom nag yëre yu weex la daan sol yëre yu weex la daan sol te tamit daf daan kaalawu kaala gi nga xam ne day muur kanam gi yëpp ba aw tuñam sax da koy muuraale nga xam ne tuuti mooy feeñ ci kanam gi kaala gi kaala gu weex la daan doon moom sëriñ bi nag bu daan dox du gestu daf daan waaxu rek jubali fi mu jubali su demee demee ba mënta ñàkk gestu dafay wëlbatiku yaram bi yëpp ngir gestu taxaw waaye noonu la daan doxee sëriñ bi nag nekkoon na koo xam ne itam ku setoon la woon ci aw yaramam waaye ku setoon la loo ku setoon la woon te silwise ci yére yi muy sol waaye ku setoon la ci bërëb yi muy toog ku mu romb xet gu neex la lay xeeñ ba xet googu day def jeexital ci yow ndax set ak silwise ak sell gi nekkoon ci moom moom nag dàll carax la daan sol dàll carax yoo xam ne dañ koo liggéey ci dénk ak der maanaam ci wolof ñu koy wax dàll karbat dàll karbat yooyu moom la daan sol moom nag ko amoon ñeewante ci nit ñi la woon ko amoon yërmande ci nit ñi la woon yërmandeem gu réy ci nit ñi taxoon na mosul romb koo xam ne dafa gis muy loru te du dafa taxaw dimbale ko ba noppi door a delluwaat ñeewante gi mu amoon ci nit ñi mbir mu nekk daf ciy xool yàlla du defal kenn te fekk la mu koy defal dafa bëgg kooku gërëm ko lu muy def rek da koy def te yàlla tax bëggul woon a feeñ ci dara ci loo xam ne doon na ko def ci lu baax ku wéetoon la ci xalaat bu sori ku réyoon xel la woon te it ku seetloon la woon te ku noppale woon la ci nit ñi sonalul woon kenn waaye nag ku amoon différent la ak ay moroomam ndax moom ñi maasal jamono li ñu daan aadoo du ko def daaw ko def benn yoon kenn mësu ko gis ci xam ne luy niru folo wala caaxaan mosul niroo ak ay moroomam as bu mu toll rek as boobu dafa leen di dépassé ndax dafay toog ak ay boroom xam-xam yi ak mag yi di sàkku ci ñoom xam-xam ak di leen déglu jamono bu nekk dafay wut lu koy jëriñ waaye jamono bu nekk dafay daw lu koy lor jukko yooyu mu làmb woon nag taxoon ne nit ñi xër ci moom lool bi muy jàng nit ñëpp daw jublu si ko bi muy jàngale itam noonu. nit ñi xër ci moom lool lool lool lool amuñ ci moom sago moom nit ñi ni ñu dawee jëm ci moom néew na ci histoire nga gis koo xam ne nit ñi xëree nañ ci moom comme ni ñu xëree woon ci sëñ bi ba mu commencé jàng la nit ñi am commencé woon di am cofeel ci moom bëgg ko lool ndax melokaanam bu yéemee ak sell gi ak set gi ak jukko yu rafet yi. waaye nag ku bëggoon xam-xam la ndax ba mu nekkee ca daaray waajuram jooju ca Pataar daan na xëy di ñëw fa nga xam ne mooy Cëlmaxa fekk fa ki nga xam ne mooy Xaadima Jaxate Kala ngir. topp li nga xam ne mooy njàngum arab ci moom ak yi tamit di def ay examen di ko wan di bind ay feuilles di ko ko wan ngir mu koy corriger ngir njàngam gën a sell gën a jaar yoon ci noonu jabar bu nekk daf daan xëy di jógee pataar di ñëw ca ki nga xam ne mooy Xaadima Jaxate Kala Xaadima Jaxate Kala léeg-léeg mu corriger ko wax baat bi léeg-léeg mu bindaat ko sëñ bi di def di def noonu di def noonu ba mu yàgg nga xam ne léegi amatul lenn lu mu ko mën a corriger nga xam ay bayitam ba andiko ko xaadima jaxate kala daf koy wax ne ko andil bayiti ngir ma mokkal ko waaye yow moom fu toll nii boo ma wul waruma laa corrigé ndax mënatuma laa corrigé noonu lay sonnee li nga xam ne mooy xam-xamam. ginnaaw bi nag daana dem ci dëkk bu wax Njaañ ci borom xam-xam bu mag bu Mauritanie bu fa wax ibnu Muhammad al Karim dan jang ci moom li nga xam ne mooy xam-xamu ak mantiq ak xam-xam yu bari ci ibnu Muhammad al Karim bobo. ginnaaw bi mu jàng foofa xam-xam bu bari bi way juram Mamoor Anta Sali gisee nag sëriñ bi ni mu jàmbaaree ci xam-xam ak ni ko xam-xam ñoree ak ni mu dajalee xeetu xam-xam yu bari sonn ci ci noonu la yëkkati daara ji daal di ko koy jox. ci noonu sëriñ bi daal di yor daara yi way juram boobu di Mamoor Anta dal di seere daara ji yor ko di jàngale jamono yooyu sax teewul moo ngi jàng ba léegi xam-xam waaye teewul daf ko boole ak jàng ak jàngale ndax moom dafa sonn ci xam-xam di ko sàkk waaye bi muy jàngale nag ca ja ñeneen ña fa nekkoon di jàngale gis nañ ne moom nit ñëpp dañu doon daw di ñëw ci moom ndax nu mu sete woon aw làmmiñ set wax ji muy jàngale fasaha daal di leer xam-xamam mooy gën a yomb ci dugg nit ñi taxaw ne ba muy nekk daara ja nit ñëpp di fàq di ñëw ci moom di jàngee ci moom xam-xam nim woon ay maamam yëpp nag daal di ñëw ci moom ci jamono bi nga xam ne ni moo ngi jàngale te fekk sax boobu pareegul am jàng waaye moo ngi ko booleeg jàng ak jàngale léegi léeg mu ñëw ci way juram ngir topp li nga xam ne mooy xam-xam bi ci moom waaye teewul su paree day delluwaat ca daara a ngir jàngale. jamono yi muy jàngale ci daara jooju nag ci la taalifee téere bi nga xam ne mooy a Al-Laxdariyu ci fiqu Maalik dal di koy tuddee ak Jawharu Nafis téere boobu nag daf ko woy ginnaaw bi mu taalifaat beneen téere boo xam ne ñu ngi koy woowee Umul Baraahin ci tawxiid la boo xam ne imaam Sànnoosi moo ko taalifoon tuddee ko Muwaahibul Quddus ci noonu mu daal di taalifaat beneen téere boo xam ne ci wàllu teggin ak yar la boo xam ne imaam Dalxaaj moo ko taalifoon mu tuddee ko annahju xadaa il boo xam ne dafa boole wéy yi ak wesar yi ci noonu nag mu daal di taalifaat beneen téere bu mag boo xam ne dafa boole xeeti xam-xam yu bari tuddee ko masalikul jinaan masalikul jinaan nag xaati mu tosoofu bu yaddaali moo ngi ci ak zahabul ibris ak junnatul murid bu as cheikh sidil muxtaar ak kunti yi ak ixyaawul xoloomu diin ak xekkam ibnu ataillah ak xeetu xam-xam yu bari ginnaaw bi nag mu taalifaat beneen téere tuddee ko tazawudu siqaar ginnaaw bi mu taalifaat beneen téere tuddee ko jasbatul siqaar ginnaaw bi mu taalifaat beneen téere tuddee ko tazawudu subaan ginnaaw bi nag mu taalifaat beneen téere tuddee ko mulayinu sudóor yàlla ñu yàlla fayal ku di ki xaajam rasul bàyyi ak cheikh mahamadou fadal mbakke borom dindi